altine juróomi fan ci weeru décembre ma di leen dalal jàmm ci xibaar yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës ñaari député yi lee di Massata Samb ak Mamadou Niang ña doon jotee Kami Ndiaye ñibbi ba gaañ ko division des investigations criminelles ñoo di leen wër waaye jamono ji kenn mënu leen bët ba tey ci mbirum Ami Ndiaye ñibbi ni ki tey sax la avocat wam maître Baboucar Cissé di jébalu plainte ca tabalu procureur danañu leen faram fàcceel ci digg xibaar yi jéego ya coordination des associations de presse fas yéene tegati ngir ñu libérer des journalistes bi di Pape Alé Niang tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne ngeen taaxil waas lëf bàkk ba jib ma di leen koy yaatalal nag bàkk ba jib na a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci sunu gaal 24 dal leen jàmm ci xibaar ah, xam leen ni rek député Amy Ndiaye Gniby mi ngi am bu baax a baax donte ma nga ñu hospitalisé ba tey ca l'hôpital principalu Ndakaaru ah, libération mu di ñu yëgal ni parlementaire gi dafa mandaté maître Baboucar Cissé ngir rek mu portel ko plainte tey jile ah, di fàttali rek ne xeex moo amoon diggante député ya alxames gi weesu gannaaw ay kaddu yu Amy Ndiaye yëkkati woon teg ko ci ndoor di Serigne Moustapha Sy député Massata Samb moo ko njëkk mbécc Ami Ndiaye fayoo kap chaise gu mu yoroon noonee la ko député Mamadou Niang wekkee di xëm ginnaaw loolu itam am na i nga ñu faj ba tey ngir muccal bébé bi élément yu douane sénégalaise gay yëngu ca Kidira dañu saisiré woon ci benn camion 300 kilogrammes cocaïne ñu ñu xayma woon na ci ñaar fukki milliards ak juróom ci sunu koppar drogue ña ngi ko nëbboon ci benn double fond métallique gu ñu suude ci biir biir camion gi drogue nag gaaw gi weesu la ñu doon ko lakk ca diwaanu Thiès gën kaa jege ca cimenterie wu Dangote ni ko l'observateur di xamle ci teewaayu takk der yu bëri la ñu ko amalee gouverneur u Thiès gi di Alioune Badara Mbeng yëkkati na ay kàddu ci cérémonie d'incinération ga di xamle ni quantité googu ah, dafa naroon jur jéye ci wér-gu-yaramu askan wi rawatina jeunes yeeg sunu économie réew mi Khalifa Babacar Sall gaaw gi weesu la doon lancé cellule cadre yu ah, ta Sénégal dal dina ciy profito 2024 gi xamal na militant yi ne rek loolu bu ñu ci am xel ñaar waxoon na leen ni nekk candidat modification wu organique gi soxal cour suprême aveu de la ci pouvoir gi fi nekk la di itteem moom Khalifa Babacar Sall moo di jariñ réew mi Khalifa Sall woyal na di àddu ci moor yu bari yi am ci réew mi nee léegi nit ñi dañuy dee ni ay weñ réew mu ni mel nag soxlaa tuñu ko ci ndigalu parquet bi division des investigations criminelles ñi ngi ci ay tànki député Mamadou Niang ak Massata Samb ndax lañu di leen tudd gi booba ba tey nag ma nga ñu hospitalisé Les Échos mooy xam ne ni seen arrestation nga procureur santaane woon ba tey antoogul jamono ji nag kenn mënu gis fenn ni ko journal bi xamle waaye nee na yónnee nañu leen ay convocation bu ñu wujjuwulee nag l'enquêteur yi dañu leen di jàppee ni ay fugitif Idrissa Seck ñaawlu na la def Famille Ndiaye ñi bi njiital conseil économique social et environnemental gi dal dinay fësal ay mbind ci réseaux sociaux yi dina xaxlu violence ak a ko bëgg lool warul tax ñu di fi xajal violence rawatina di ko jëmale ci soxna yi wéyal na di wax ne assemblée nationale ak kuréel ga mu jiite dañu leen taxawal ngir ñu teewal fi askan wi tënkee na ko naan démocratie wu Sénégal royukaay la fépp foo mën di dem ba tax na dañu ko war a sàmm toll na ci weer bi Pape Alé Niang newee kasu ak ndëgëni coordination des associations de presse fasul yéene teggi tànkam ci euh, xeex ga mu tàmbali woon ngir ñu libéré seen naataango bi Ibrahima Lissa Faye mayor seen kàddu biral na ay ndaje kilifa diine yeeg aada yi jox nañoo ndaje journaliste yeeg technicien yàlla ba gii di ñëw bu 10 heures jotee ca maison de la presse kap fasatuñu yéene négocier te pare nañu ngir fekk ji euh, Pape Alé Niang ca kaso ba danañu def li war yépp ngir ñu libérer directeur Dakar matin gi yëf yi nag guerre la fi mu toll nii te libération Pape Alé Niang lépp lu mu laaj ñu ko joxe journaliste yi nee nañu lépp lu dal Pape Alé Niang njiitu réew mi Macky Sall mooy responsable gi ko CAP di xamle ndax nee nañu moo daan ko gunge ci ay rendez-vous médicaux wam CAP génnewul sax ci ay action wam boycotté ay activité wu nguur gi way laa rek décrété journée sans presse ministre de l'enseignement supérieur Moussa Baldé ba mu yàddu ci contenu université yi dafa wax ni rek l'université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moo di première ci Afrique francophone nee na anglais bi nga xam ne moo di langue de recherche moo waral anglophone yi jiitu ndax revue yu gi coppite am ci wàllu woowu ah, mu di lu muy wax ni rek njiitu réew mi Macky Sall ànd na ca ba wax ni ba ci ñoom ministres yi dañu war a làkk anglais ah, da leen ko exiger nag looloo waral Macky Sall bëgg ñu dégg anglais fii ci Sénégal li ko dalee secondaire ah, moom Moussa Baldé nee na du moo ko war a acté waaye nag yéeneem la dafa bëgg anglais doon deuxième langue fii ci Sénégal tàggat yaram la ñu koy ndar keppee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi démb la Sénégal doon janook Angleterre ñeel huitième de finale coupe du monde Qatar 2022 gi ndaje Sénégal ci dara Angleterre toogloo Sénégal njiitu réew mi Macky Sall encouragé na gaynde yi ci défaite bi tey rafet rafetlu parcours bu baax tam solo gi ñu def donte Sadio Mané teewloon gànn gay ak Kouyaté Macky Sall dafa leen a leen ni 16 meilleures équipes yi ci àddina bi la ñu bokk tey it Angleterre équipe de taille la kii di si Cissé nag adduna ci aveniram am gannaaw élimination wu ndawam yi lee la mu tontu ci laaj googu moo di ne bëgg gu cee wax fi mu ne nii moo di sélectionneur Sénégal li ci des nag ko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 set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax